kon ñoo ngi sant suñu boroom bu baax a baax di dellu di nuyu journalistes yi fi teew yëpp ak di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñoo ngi déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew di gërëm le président de la conférence des leaders Khalifa Ababacar Sall bi nga xam ni moo wax léegi ci turu leader yi fi toog di ko gërëm di gërëm leader yëpp ci seen taxawaay ci li nga xam ni moo fi am fan yi te sénégalais yëpp gis ko naqarlu ko nga xam ni du lenn lu dul enlèvement d'opposants du lenn lu dul séquestration d'opposants mais bi loolu amee gis ngeen ni nekkuma fi maa ngi woon prison mais terewul lépp li war ci taxawaay ku nekk si ñoom toog fii nekk conférence des leaders def nga ko donc ma leen ci remercier di leen ci féliciter parce que loolu mooy mbir mi Macky Sall jàpp na ma jàpp na ay dara jàpp na Guy Marius Sagna jàpp na beaucoup de militants et sympathisants yi nga xam ni ñoo ngi nekkoon ak ñun mais loolu na xam ni du dara te maa ngi ciy dellu soit léegi toujours ci chapitre gërëm bi parce que dafa jaaru bu li ñu mel amee nga gërëm ni nga xam ni dañoo am taxawaay parce que wax fa dëgg yàlla tous les jours ay message ñoo ngi ma koy indil ci ku nekk na nga taxawee di leen gërëm la presse parce que suivre nañu débat yi suivre nañu intervention yi gis nañu ku nekk ni nga exprimer sa indignation pour le bien de la démocratie des libertés ci li nga xam ni moo xew ci plateau yi les chroniqueurs les politologues les journalistes les patrons de presse amul ku ko deful sa affaire parce que jàpp nañu lii jaaduwul Sénégal tolluwul fi nga xam ni dañu war enlever ay opposants di leen yóbbu en prison mais c'est que Macky Sall dafa xamul luy prison moo tax pour moom da ngay jëlee yóbbu prison vraiment di leen ci remercier bu baax a baax di remercier chef religieux yi ci tarixa bi mu mën a doon parce que ku nekk yónnee nga ci conférence des leaders mastawu mettitlu yónnee nga ci famille bi mastawu mettitlu li nga xam ni moo xew biir Sénégal te Macky sàll commencé di ko teg nit ñi ñoom ñu jàpp ni jaaduwul ku nekk exprimer loolu di remercier aussi député yi nga xam ni ñoo def li muy Chérif Montey di Manem soo Ndiaye nga xam ni def nañ une initiative pour que li doon suñu àq ak yelleef ak Maam Jaara Fam ñu mën ñu ko jox mais terewul justice bi tëx terewul Moustapha Niass tëx parce que moom li président Macky Sall wax rek lay wax te ordre bi ci président Macky Sall la jóge woon di remercier le président Abdoulaye Wade ak Karim Meïssa Wade ci délégation bi ñu envoyé à la conférence des leaders envoyé que kër ga pour mastawu li nga xam ni moo xew loolu doon lu doy waar aussi et vraiment di leen ci gërëm bu baax a baax di ci gërëm aussi Barthélémy gaz les membres de la coalition ci déplacement bi mu def ak toute la mairie de Dakar ci famille bi pour mastawu pour mën a également mettre lu lii nga xam ni moo xew di gërëm sama xarit le président Abdourahmane Diouf nga xam ni mooy président Awale ñëw na ba prison pour seet si ñu di gërëm le président Doudou nga xam ni aussi suñu doyen la référence la ci Sénégal ñëw na ba prison également di nu mastawu di gërëm aussi Bougane Gueye Dany parce que gis nañu taxawaay bi mu am message yi mu yóbbante ak également lépp luy prise de position yi mu ci am ngeen may mu aussi ma gërëm sama xarit prisonnier yi ma am biir prison de Rebeuss biir prison de Sébikotane vraiment am naa fa ay xarit yu bare parce que li président Macky xamul mooy ñun jàngal nañu environnement boo ñu yóbbu ñu adapté wu c'est ce qu'on appelle dans l'armée les stages de vie et de survie foo ñu mën dugal ñu adapté wu ak l'environnement et vraiment trouver fa ay prisonniers yu xam seen bopp yu bëgg Sénégal yi nga xam ni ñoo doon nekk tous les après-midi à partir de 17 heures 18 heures ñooy fubalandoo ci terrain ba d'ailleurs maa ngi am benn góom fa laa ko jëlee moo tax may soox un ñooy fubalandoo donc on était bien ak garde pénitentiaire yi le directeur de la prison di leen gërëm ñoom ñëpp parce que xam nañu ni li ñu fa indi jaaduwul di gërëm et di sant aussi l'opposition française ñi nga xam ni ñoo prononcé wu ku mel ne le député Olivier Faure indigné wu li nga xam ni moo xew Sénégal ku mel ne Jean-Luc Mélenchon indigné wu ci li nga xam ni moo xew Sénégal jàpp ni ñooñu ñoom comprendre nañu ni le Sénégal ak l'Afrique de façon générale nekkatuñu ci façon boobu amoon au début ce sont des Africains des Sénégalais aujourd'hui extrêmement fiers et dignes yi nga xam ne lu mën a ñëw daan def face parce que seen réew rek moo leen ñor et di leen gërëm ci position yi nu am affiché ko pour xamal ni le président Macky Sall nekkul ci yoon di réserver une mention spéciale aux avocats avocats yi plaidé pour ñëpp yi ñu jàppoon képp ku demoon tribunal de Guédiawaye dem bu Ziguinchor dem bu Dakar xam nga ni on a de brillants avocats et ñu ci bare danoo ñëw rek autoconstitué wu xaaruñu sax déjà ñu leen di wax ñëw leen moo tax ngeen gis plaidoirie bi yàgg parce que chaque avocat en faisait son affaire en réalité et xaarul Ousmane Khalifa wala keneen di ko woo dañuy ñëw ni lii seen mbir la parce que Sénégal tolluwul fuy Macky Sall tey bëgg jàppee delloo ñu plusieurs années en arrière donc ñoom lu ñëw autoconstitué wu ñëw nekk les avocats de ceux qui étaient di remercier di féliciter mais collègues au milieu professionnel nga xam ni tous les jours je reçois leur soutien vraiment di wax ni bépp sénégalais. foo mën a nekk ñoo ngi lay gërëm di wax ni nag lii dafa tàmbali rek mais dañ koy poursuivre la diaspora gis nañu manifestation yu ñu doon def tous les jours pour la libération des détenus et vraiment di leen féliciter parce que seen mobilisation boobu wër na adduna di wax nag ni Macky Sall heure bu ñu jàppee yóbbu ñu prison nag xam lenn rek day gëna a suñu conviction ci li parce que fii ñi fi toog amul ku fii prison di briser mënul nekk parce que bi ñuy dugg politique dañ ci dugg en même temps ñu jël suñu bopp xam ni lépp lu ci war ci sacrifice dañ koy def pour askanu Sénégal parce que ku nekk mënal nga sa bopp li nga xam ni doo woon dugg politique kon boo ko ci boo ci duggee rek da nga jóg pour jël sa bopp jox ko Sénégalais yi pour également endurer supporter sacrifice yi ci am yëpp donc lii mu def au contraire daf ñu gën a motiver dafa gën a renforcer suñuy conviction ci li nga xam ni moo war suñu diggante ak Sénégalais yi kon di rassurer Sénégalais yi que six mois avec si deux ans avec sursis sept ans avec sursis je ne serai jamais en sursis dans ce Sénégal-là il n'y a rien qui peut être au-dessus de ma tête pour freiner un seul pas ci samay conviction politique pour freiner une seule seconde ci sama engagement politique na def lu ko neex bu ko neexee suba six mois yooyu na ko exécuté et dignement laay dem supporter tëdd six mois yooyu muy quatre ans dignement laa koy dem supporter dëgg parce que ñoo ñu ko wër ñëpp muy les officiers généraux les officiers de l'armée de la gendarmerie fi ñu tibbee laa tibbee à l'ENOA fi ñu leen formé lan ma formé et je suis extrêmement fier de et je les salue et je leur transmets toute ma reconnaissance parce que ñoom Macky xamul mais ñoom xam nañu foofu ñu tibbee la tibbee fi ñu leen formé lan ma formé donc lu mu indi ñu naan ko ba mu jeex takk parce que Sénégal jaral na nañu ko kon na def lu ko neex na préparer prison bu ko neex fu mu mën a nekk conditions yi fa nekk je trouverai les conditions de ma survie et c'est comme ça moo tax bi nu yeggee section de recherche le commandant maa ngi koy saluer Aliou Ndiaye qui a été très professionnel jël benn néeg dugal ma fa taal clim bi bi MDL bi ñëwee dama ne ko fayal clim bi ubbil fenêtre bi bu ko defee ma jël ci chaleur yi jël ci yooyu préparé fi ma jëm parce que je savais qu'il ma me transférer moo tax sama yaram bi yëpp gis ngeen ay matt tatu yoo la parce que dama dem prisonnier yi mën leen bàyyi leen yooyu jël seen asaka ba mu doyal bu ko defee dootuñu ma matt da may biiw rek donc pendant soixante douze heures gars yi matt ba doyal après di biiw jeex na mooy le problème amul benn problème fekkee dañoo bëgg jóg pour liggéeyal Sénégalais yi il faut ñu assumer loolu donc pour wane rek ni li mu def amul lu muy wàññi day gën a yokk suñu motivation yokk suñu conviction parce que dañoo jóg pour liggéey Sénégal danoo jóg pour defar Sénégal dañoo jóg pour faire retrouver le Sénégal sa dignité et loolu ma kay wax au procureur de la République bi nga xam ni bi muy dugg keroog il était entré avec ses pensant que pour une fois, on est la devant lui. On est là devant lui qui parlait de justice, Moutok, et qu'il est le roi. Et que li nu waxoon Khayna Et que Khayna nous trembler devant lui. Quand il se permet de prendre la parole après sa intervention, di wax le juge, comment quelqu'un comme Détier peut être là, malgré l'inquiétude reproché, il ne s'est pas repenti. Détier refuse de se repentir. ma koy xamal ni yàlla képp yàlla képp moo am méritu jot sama repenti ca la ma def kuy nit ak foo mën a nekk ak koo mën a doon doo jot sama repenti waxuma laa ca la ma deful donc il ne devait pas être de cette posture quand il encore que devant tout le tribunal Déthié Fall tient une posture martiale Comment un militaire formé à l'ENOA, devant n'importe quelle situation, ne, de, de, je ne peux tenir qu'une posture martiale. Même le couteau à la gorge. Toute l'armée nationale, je tiendrai une posture martiale. Donc il devait pas être étonné de cette posture. Quand il dit des doté par la nature d'une si grande intelligence, au lieu mu utiliser que pour le bien du peuple mu koy utiliser pour attaquer les institutions mon intelligence c'est pas son problème fi ma koy utiliser xëy na moom dafa xamul mais je ne l'utilise que pour le bien des sénégal et marcher pour les libertés pour les droits fondamentaux pour la démocratie amul lu gën a nekk bien que lool donc pensant que dañu jóg attaquer suñu institution fa la ñu yóbbu suñu intelligence fa lañ ko utiliser il est dans l'erreur absolue il a chargé pendant quinze minutes sur plaidoirie de vingt quatre minutes de cefal ba ñii ñëpp kenn mënatul muñ kenn mënatul téye sa ay de moo xaw na jóg elle a fait violence sur elle pour écouter li nga xam ni moom la procureur bi doon parce qu'elle pensait tout simple qu'il pensait tout simplement que fi mu toog ci chaise mën na wax te tey comme mi ngi doon nekk di attaquer ay leader attaquer Ousmane attaquer keneen il nous a en face enfin il a en force il est en puissance mën na wax lu ko neex foo mën a ne ñu fekk la fa doo fa wax lu la neex daan la wax ay dëgg te dëgg yooyu bu fekkee moo lay yóbbee nga demander cinq ans d'emprisonnement ou dix ans d'emprisonnement du ñu teree ñu wax la dëgg et ce procureur je le di dis donc li mu subir foofu na xam ni mu jàppaat ma indiwaat ma fa dans les mêmes circonstances dans les mêmes condition je dirai encore les mêmes choses avec cette même posture martiale et les mêmes vérités pour le Sénégal et les Sénégalais et il va essuyer ces vérités là parce que duñu kuy daw duñu kuy lox duñu kuy xef-xefi suñu benn maam daw donc qu'il le sache c'est comme ça qu'il n'est pas à s'indigner de mon comportement devant le ballon noonu lay demee toujours parce que lu ma wax dama koy assumer lu ma leen wax fii Sénégal yëpp dégg ko nekk bii réew bitim réew dinaa dem ba taxaw kanam procureur naan maa ngi débiné wu je le ferai jamais jamais jamais jamais li may wax fii xam leen ni bu armée nationale taxawee moom lay wax c'est comme ça noonu leen ma bindee noonu leen ma yaree te loolu laay def ba abada parce que fii ragal nekku fi donc di ko ka wax di remercier les juges je ne suis pas du tout je n'ai rien contre eux le juge Abdoulaye Ba qui a libéré quatre-vingt-un détenus man rek la def six mois avec sursis ak Ahmed Aïdara un mois avec sursis pour le juge bi fa nekkoon Guy Marius Sagna on me prend également un mois avec sursis donc xool ku ne looy gàll ci moom pour mu bañ a bouger dans ce Sénégal là personne ne peut m'empêcher de bouger personne je bougerai toujours fièrement la tête haute la poitrine suffisamment bombée Et je toujours les Sénégalais droit dans les yeux. Et Macky Sall droit dans les yeux. Donc ça, c'est clair. Pour dire Sénégalais yi que ni nanu xam ni waxtu jóg dafa jot waxtu taxaw dafa jot waxtu faire ressortir chez chaque Sénégalais cette fierté qu'on lui connaît dafa jot waxtu faire face à Macky Sall dafa jot du buur du lenn c'est un président de la République et ce titre il le tire de la Constitution c'est parce qu'on est dans une république. Maintenant, s'il veut transformer cette république en royaume, il se trompe. Parce si on était en royaume, on du Setobourg, man là. Donc on est en république. Donc on yam ci petit, on a rien petit périmètre république pour nous continuer à bénéficier de ce titre. Et périmètre de république, c'est une constitution. Et dans cette même constitution, on a le titre. Et dans cette même constitution, on a le droit de manifester. et nous interdire tout ce que la Constitution nous donne et nous dire maintenant laissez-moi gouverner tranquillement mais ku fi ñàkk fayda boobu ku fi manqué fulla boobu ci sénégalais yi donc pour lui dire très clairement que on lui fera face et que chaque sénégalais lui fera face loolu naka xam mu leer ci boppam donc na ubbi prison yi na yokk cellules yi on va revenir les quinze millions de sénégalais vont venir parce qu'il s'agit de notre développement notre émancipation il s'agit de montrer que luy xam-xam am na fi luy fulla am na fi fu réew yegg sénégalais mën na fa yegg Sénégal mën na fi yegg moom bu ko xamul bay war dem di topp ku nekk di ko neexal moom moo toll foofu mais ñu dépassé noonu loolu on est suffisamment fier bien formé suffisamment informé pour mën a engager le développement et ce sont ces leaders là qui sont là qui sont dans dans dans dans dans dans dans, dans cette direction est vraiment de terminer par encore une fois leur exprimer toute ma fierté leur dire combien je suis heureux de faire partie de cette coalition combien je suis heureux d'être tous les jours avec ces braves leaders chacun individuellement pris symbolise la fierté sénégalaise quel que soit par ailleurs ce qu'on peut lui dire Parce que des fois, tu peux voir des personnes sans les connaître. Mais chaque individuellement pris symbolise la fierté sénégalaise, la dignité sénégalaise. Donc, on a Macky Sall Khamni, Yehui Askanwi, qu'il le veuille ou pas, est devenu la première force politique de ce pays. loolu moo koy dofloo et les avocats le lui ont foofu laay daanalee donc di wax rek nii bu kenn am sikki sàkka bu kenn am jaaxle ma détermination reste intacte et épée de Damoclès mënul am sama bopp bu amoon sax damay tëb jël sama bopp dugal ci épée bi c'est comme ça donc loolu na ko xam et on reste plus que jamais déterminé je vous remercie